maa ngi leen di ziar di leen béggee ànd beeg Aladji kii bi am na solo lool ànd boobee yàlla na jëm kanam maanaam xibaar yi la ñu koy doore mooy kii di Edouard Mendy mi nga xam ne fi mu toll nii Frank Lampard boole na ko ci ñi nga xam ne ñoom la war a àndal ci li nga xam ne mooy desetu saison bi donte nag Bayern de Munich mi ngi roof ab galgal di ko bëgg loole tamit dina am solo bu baax a baax waaye Frank Lampard boole na ko ci ñi nga xam ne ñoom la war a àndal waxtaan naa moom kàddu ya leer na maane ñaan ñancoo Euh, promettre Sénégalais yi promettre àdduna bi euh, di wax ni euh, dana toj jamono dana ko tukkal dana def loo xam ni sax da ngeen a jàpp ni gone gi mënul ko ginnaaw ba nga xamee ni rajo xel na fële nga xam ni moo nekk Liverpool ca Angleterre léegi gone gi mooy tëggal gu yam ma ngay am taxawaay boo xam ni yebbi na ko beneen bi kii di Koulibaly moom mooy chef défense si bi loolee ki ko xam ne mooy kër Kreuger ma nga xam ne daanaka ab consultant la te it nekk pro Liverpool waaye loolee teewu ko. mu jël gone gi alusi ko ci li nga xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne jamono jii am na ko ñetti ponk yooyu bokk na ci ci nga xam ni moom la lañ gën a fës ak Barcelone gi nga xam ne moog Real Madrid coow laa ngeen ni kur ca arbitre bi nga xam ne moo doon arbitre match boobee nga xam ne moo doxoon ci diggante Barcelone ak équipe bi la nga xam ne moo nekk Real Madrid Real Madrid wulli ko ñeenti bal ci dara gone yi Barcelone yi jàpp nañ ni arbitre boobee naa naaféq bu mag a mag la